voilà eh, am leen si mere wala am leen si jàppale yéen xam ne noonu la ko doon demee waaw sama destin daal waaw. mais problème mobile 2 la xam nga dafa amoon combat ko Bour Sine xam naa nga far yàlla def bi bu mu jegesee mu ñëw tàggu ma day tukki ma ne ko jege na mu ne ma damay màggal si parce que màggal bi ak combat presque deux semaines mu ne damay màggal si far yi dem ba si biir ma am problème mu këyit woo promoteur bi ñaan ko ne ko dama bëgg nga may ma saa yu ma ñëwee ma bëreel parce que fi ma ne mënu ma ñëw promoteur bi nag ne may bëreel problème boobu nag man naa si ñaari mbër journée boobu ñu woo ma ne ma signé ma ne mbër bi ne fii Sénégal dama koy signé mais mbër bu ne États-Unis foog mënu ma ko signé ñu ne est-ce que xam lu la fekk ma ne ko lu ma si fekk rek ma jël mais man du ma signé mbër bu fi nekkul noonu la waaw sant yàlla rek parce que gis nga mbër outil métier mooy ménageur man dafa nekk yàlla dafa def sama lépp def ko si làmb dafa am fu may yëngu tey jii bu ma jëloon sama lépp def ko si làmb kon dinaa sonn lool mais dafa am fu may yëngu moo tax naan mbër ak ménageur képp ku nekk si làmb war nga am métier pour tey jii lamb bu kalee dëgëree nga dem feneen waaw sant yàlla. moom na la yow loolu ay def waaw maa koy nuyu de passage di ko sant waaw ma ajee ba léegi franchement aj bi da ah, nga métti na ko ba nii nii nee na gars yi la war a jox sa licence nga commencé problème mu fay bi am amaan bi am ki ma war a delloo xaalisam man mbër mi la mais feeñ na ma ba léegi parce que tey jii nit bu la laaj nga ñaan grâce comprends nga may la parce que de Baba Jaxal aj nañ ko fi mais dafa ñaan ñu may ko comprends nga tout récemment auteuru cité bi. am na gars yi problème mais dafa ñaan ñu baal ko comprendre nga ñaan boobu nag la mobile waroon ñëw ñaan parce que waa CRT nee nañ wax bu mu leen di wax ak kàddu yu mu leen di sànni xëy na loolu leen déranger moo tax ñu aju mais moom fan yi noppi na gars yaa ngi ñaan waa ARES association des ménageurs yi promoteurs yi ñëpp ñi ngi ñaan waa CRT ba si PKM Mbaye ak Moustapha Gueye ñoom ñëpp ñu ngi daan CRT ne mobile dafa bëgg si làmb cinq ans ñu aj ko mbër mooy bàyyi làmb te mobile dafa tëddoon mbër tey jii mi ngi ak visa 10 ans bu ko neexoon mu dem États-Unis mais def ko moom lamb ji la bëgg ba léegi nag aussi man sama bopp maa ngi ñaan waa CNG di la tàllal loxo xale la ñu jégalu te yàlla tax. li nga mobile nangul bind pour jégalu. non bind lañu ñun bind lañu. bind lañu. bind na waa ARELS bind nañu station de ménagères yi bind nañu comme nag ngi si table CRC waaw bind nañu. lan mooy problème mu Zarko ak mobile 2 ñoo ñaar ñooñu mënuñu ànd. man maa ngi ñu naan dañuy am problème mais man problème moo par personnel gisuma ko gisuma ko. gisuma problème man maa ngi gën waaw ñi ngi ñëw entraînement di waxtaan seen biir di contact seen biir mais problème gisuma ko. est-ce biir Grand Yoff bi ñu commencé contact ba léegi mobile contact ñëwagul mais Zarko mi ngi contact mais ba léegi ñëwagu fa waaw mobile ba léegi ñëwagu fa waaw. mais mais tey diggante bi nit ñi ñi ñee nañu neex. waaw xëy na mun na parce que man balaa may xam ne neexoon nañu wala neexoo mobile commencé foofu laa di xam neex na wala neexoon mais ba léegi moom it commencé gul Zarko moom mi ngi contact waaw. waaw mi ngi contact parce que mu ngi def chaque euh, jour mi ngi def trois séances des fois dañuy contact ba pare gars yi ñibbi mu dem këram yoxo dem géej si guddi gi dem diin fa lay nekk ba une heure du matin deux heures du ñibbi si fajal mu xëyal dem. ba pare. pare mu dem diit def ba une heure deux heures mu ñibbi si waat. deux heures du matin mu ñibbi si waat. mais moom maa naroon claqué ba fii ba combat bi. non xam nga xëy na fi nga combat bi yóbbu la. waaw waaw jour ba en tout cas bu sumee ko. waaw ah. ñëpp kontaan. ñëpp kontaan. incha allah mu daan mbay bu yi daan mbay ma ñor. Ah. ñëw daan xale bi nga xam ne tey Sénégal yi ñu am yaakaar si moom xale boo xam ne waaw loolu Zarko nan la koy nan ne def na ko fi. jaax du ko teg bu bëreeg Sa Thiès. waaw bëreeg guy gi. waaw combat nga bëreeg Baye Mandione. wallaay combat jaaxal. waaw amatul pression combat. waaw Zarko amatul. boppu day ñëwaat day ñëwaat. day ñëwaat day ñëwaat. man lañ koy soosee bopp bopp boobu. non grave lañ koy soosee amul ndox du bàyyi yoon. ndox du bàyyi yoon. jërëjëf <laughs> euh, bëgg baal ma jërëjëf kontaan nañu. waaw waaye sama manager. amul problème ñoo fa ñoo fa jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaan nañu.